bu ñu sukkandikoo ci yenn kaay bi di libération xabaar bi mu xëyee niki àllarba ji daal na xamle ne diggante ndakaaru ak Paris ñu ngi daal di nekk jamono ji di amal ay waxtaan ngir daal di expulser ki nga xam ne moom moo di doomu France bi di Colin Faye gannaaw ba nga xamee ne sax lii di waxtaan yi gis nañu ne avancé na bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci yenn yéenekaay bi gannaaw rek ba mu foree xabaar yi ci ay sources autorisées kon bu fekkente ne lépp mu ngi jaar yoon bu ñu sukkandikoo ba tey ci source yi moo di française bi am lu toll si ñaar fukki ak juróom di Colin Faye la dund li nga xam ne rek moom la Juan Branco di kenn ci avocat yi Ousmane Sonko yi dundoon gannaaw rek ba nga xamee ne moom Juan Branco ba ñu ko tegee loxo fii ci réewum Sénégal ci jamono joo xam ne rek dañu ne woon ay accusation lu grave la def dañu ko mujj daal di teg loxo gannaaw gi it dañu ko daal di mujj expulsé maanaam dàq ko génne ko réew mi Colin Faye nag boo moytuwul jamono ji rek lu ni mel la fas yéene dundaat gannaaw ba ñu ko tegee loxo ca kanamu Cour suprême niki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum ci jamono joo xam ne mu ngi doon wone rek njàppale gu mu am jëmale ko ci leader bu Pastef di Ousmane Sonko dossier nag gis nañu ne jamono ji gën naa yéeg gannaaw ba nga xamee rek dañu ko daal di mandat de dépôt juróom benn fan gannaaw loolee ñu ngi ko doon toppee lu jëm ci wàllum acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique naka noonu itam complot contre l'autorité de l'État jëlee ko nag boobee mën nañoo gis ne moom Colline fay di doomu France bi am lu toll ci ñax fukki at ak juróom benn mu nga yeewoo ca camp bu Liberté 6 presse bi daal dinañu ko woon ngalaat beneen tuuma bu ñu teg ci kawam gannaaw rek ba nga xamee ne bu ñu daal dee suivre li nga xam ne moom moo di réquisitoire u parquet bi juge bu deuxième cabinet bi nga xam ne moom la ñu daal di dénk mbir mi ñu xamle ci ne moom xale bi ñu ngi koy toppee lu jëm ci wàllum doon jéem a génnee ay bataaxal yoo xam ne kon mbirum secret la naka noonu itam complot gu ñu doon amal jëmale ko ci autorité de l'état waaye it doon jéem a jaxase loo xam ne bés bu sotti woon rek mën naa xajamal diggante réewum Sénégal